exactement euh, si recours yi nga xamni tam jot nañ ko daal di biral si mbiru Barthélémy Diaz ak ki nga xam ne que Ousmane Sonko des Sonko ko daal di forom fa ci sunu mu gën a exactement suñu ponk itam tam ci gëna gëna fess bokku fës bokk na si ki nga xam ne que mu Diop mi ngi tay ji nak ci kanam mu yan ak wàllu ki yonal ci ben présumé bi nga xamni tam tuddu ne ko toll na ci 30 millions yi euh, suñu ay copa den daal di yegg tam lu daal di ñeel ci li nga xam ne que actualité bi ak réduction des comptes tollu way way tam ak haute juridiction bi nga xamni tam El Malick et compagnie annoncé nañ ko place ci atte les ministres de Macky Sall Sall alors mais tout d'abord dañuy daal di dox suñu waxtaan par rapport ak li nga xamné que modi Mirou mbiru Barthélémy Dias ñu koy daal di ni euh, si kanam yoon ak walu ko yoonal fu mu toll nii nag li nga xamné que modi le conseil constitutionnel Haïti saisi euh, par des candidats jëmale sélection yu euh, législative yi daal contester exactement la candidature bu Barthélémy Dias ginnaaw mbirum ak ki nga xamné que modi di Ndiaga Diouf exactement alors Abdou ba jang si daal def lu ñu mel peut-être sûrement bettu la yaa ko doon xaare ni ki nga xamné que modi di Barthélémy daal di koy clamer devant les sages du conseil constitutionnel exactement. waaw parce que loolu xalaatoon naa ne waa Pastef dañ koy def bi ko waa ji defee nag ma ah xëy na ñoom la ko defal. ndaxte ah waaw man xalaatoon loolu du tey Pastef bu ñu sañoon Macky Sall du dem Barthélémy Dias du dem moo tax xam nga conseil constitutionnel ba mu leen joxe avem dañ kaa nëbbu defaru ba jekk. Hmm. ne gars yi am ngeen 10 jours. ci biir 10 jours yooyu gars yi lijjanti nañ ko ba teg affaire yi ci axe. lolu jaaxal le nak ci bir 10 jours yi gaay yi lijjanti nañ seen problème ba régler lepp tek pa de pëcc xoo pa de mbicong mbaalaw ta ñoom bu doon bi nekk ci opposition bi lañ ko defoon kon kenn du dégg bu doon Macky Sall ko defoon kenn du dégg tey ñu def ko gaay assumer ko ànd ci ak ñoom fas yéene liñ ci duma ñoom nag seen problème mooy ndax ñi war nañ ñoo duma wala waruñ ñoo duma ñoom élection ci ay mig mag lañ ko bëgg a gagné te du jàll de ñom lu leen dal élection yi buñ ko perté ñoko perté pertal seen bopp parce que ñoo samul seen cadre di recours ay Barthélemy Dias nak lolu yëfu ndaare la parce que ki déposer recours bi amul ñaari nit kii Barth bokk Barth bañu bokk amul mais quand même c'est son candidat quand même euh, il fait euh, de la politique yow da nga xam mais euh, bëgg na xam nga ko euh, ñi découvrir ko <laughs> exactement ah maa recours woon Barthélemy Dias ma recours woon Barthélemy Dias si la ko nit ñi découvrir parce que motax ñu bëri découvrir ko exactement ñaari nit nak du ko am nañ xam ne kuñ yoni la na may nit ñi jàmm mais pourquoi nga bu ko jéem wa passif da jamono jooju non parce que passif ñoo taxaw ñom ay dafa et compagnie que ni ñom au contraire ñom li ñi déposer recours contre ñom mais ñom fallu euh, fàllu ñu dal di déposer recours contre qui que ce soit fallu ko wax fe ñom wax nañ fe ñu wax bañ feeñal sen bop xam nga bo ñëw nga ne man recours ok xam nga ya wax nga recours hmm. lu fi indi baat bobu ga ci dess dem ci télé yi ya naan ñu xëy gisub recours lu ko lu fi indi baat boobu caaxaan baaxul affaire bi du recours dëgg rek Sonko na lijjanti bosam comme moom dóor nañ ko recours mu ne <laughs> xaaral ma yónnee ñu door recours baat noonu la ko bëgg a defee <laughs> affaire yi jantal meen amu ci nag parce que waa gëm sa bopp lii ñu wax nii neexut a weddi gëm naa ko de. mais man a quatre-vingt-dix pour cent damaa gëm ne Sonko Sonko moo yónni kii def recours bi. gëm naa ko loolu sama gëm-gëm la xanaa kenn du ma ko bañal jeex na loolu te question boobu ma sañoon du ci sori comme affaire yoon la. man à chaque fois du ma bëgg. xam nga xaaral ma wax fi nga laal. waaw xaaral ma wax la am solo exactement. xaaral ma wax li nga ne waa Pastef la. Euh, benn yaa ngi discrédité li nga xam ne que moo di candidat bi déposé li nga xam ne candidat bi amul ñaari nit kii kenn xamu ko tojul fenn siiwul. Ah, benn bi aussi. ku ñu batale la rek mu ñëw di saboté ak jéem a xajamal. moo tax man la juge boobu. mais est-ce que da nga si am lu leer que ni. xam nga juge xam sori xam nga ndax bëgguma sori parce dafa ne ci yoon yoon di ko lijjanti te bëggumaa jiitu man bëggumaa mel comme Ousmane Sonko di jiitu dossier yi di jiitu di wax bëgguma mel noonu. Hmm. je euh, préfère que ma ma bàyyi yoon def ci liggéeyam samay interprétation nag. weesuwul Sonko moom xam naa ne loi amnistie bi ci la bëgg a langaamu. Hmm. Barthélémy Dias code de la presse bi ci la ñuy wax ñoom ci la ñu layal seen bopp. code ah. ko nag code kii nu mu Euh, code électoral bi ku ci nek amna fo jafone am ngay avocat nañu bayyi yoon doxal mais récemment da nga xone ni ba ko doon modifier les affaires non biñ koy modifier fekk na affaire baat bi jaas engagé wu ko te dañ ne loi bu diisee du rétroactif bu dé loi bu oyof donc pourquoi wa sam kaddu di tit su fekke ni am na non amul kenn ku ci ah. parce que dem gis ne bu buggaan ngi dani ñom ñep genn di wax parce que dañu yoni ben organe de presse bu ñu wax mu doon sonde ñeen dafa joom da doon sonde joomul moko tay xam na ni mënoo def dépôt recours démb mu génn tey moo la ko gën a xam yow xam nga ni recours bu ñu ko déposé dinañ ko notifier sax candidat bi moom mu dem defaru déposé ay layam loolu yëpp amagul yow nga génn fee nekk média mag naan dama juumul moo ko tey da doon sonde xool nu gaa yi def dañ bàyyi dof dof lu nag. mais le cas Baat ak lépp lu mën a doon wax na ko sànq da ngay bàyyi dossier bi li nga xam ne moo di yoon mais quand ak lépp lu mën a génn justement ak lépp lu mën a génn est que

ci yu projet bi am na ñeneen ñu wax lu dul loolu kon nañ déglu yoon rek yéen da ngeen am seen i juriste bopp ñoo leen di defar article di leen ko wax ni ngeen ko bëgg ñeneen ñu am seen i juriste nañu bàyyi conseil constitutionnel bi fi nekkal askan waxal ñoom am seen ay juriste yéen ñëpp la ku nekk na ko interprété ni mu ko bëggee mais conseil constitutionnel nu mu ko interprété noonu la la ngay xaar ci conseil constitutionnel avant peut-être la mooy mu àtte dëgg rek dëgg doo nga laa xaar mu àtte ñaari ku ci wërta dem mu ne la demoo ku ci war dem mu ne la dem da ngay dem Ousmane Sonko jël na dix avocats pour layal boppam Barth jël na pour ñu ku ne layal sa bopp askan bi nañ ci maandu rek télé yi dem di manipuler yónni say chroniqueur ak yónni say non c'est pas ça. mais parti bi taxaw assemblée nationale disqualifié boppam Abdou. te ngeen bëgg a toog di nii en fait. Barth àttewul moom moo ne carrément mënumaa nekk candidat. Sonko toogoon na fii ne Macky Sall mën na nekk candidat 2024 après mu génnaat ci weddi ko. kon Barth di mu tënee. non Barth moo àttewul boppam. àttewul boppam loolu mooy problème bi nag dañ koy àtte alors mi exactement Nous ki n'avons xam ne moo di euh, Diaz ak rebondissement yi nga xam ni itam allant dans sens en tout cas ni daal di ni décision bi nga xam ni itam dina daal exactement sur le conseil euh, constitutionnel moom itam fa seen daal di war penché euh, par rapport ak boobu di nga xam ne moo di maire Guinaar déposé recours contre mom. donc nag information yi nga tam ni itam démb mi ngi daw en tout cas Walfadjri mi tiens tient à préciser que ni mi ngi daal aussi balou l'ensemble de son public par rapport ak xibaar yi nga xam tam itam ko par rapport ak mbiru ki n'a xam nekk mu di donc jusque jusque là le conseil constitutionnel prononcé ou allant dans sens peut être ñu ne am une semaine en attendant partie di daal euh, di amal li nga xam nekk pôle de défense am peut être kay war défendre si wàllu wu mel exactement alors euh, ginnaaw loolu itam dañuy daal di si itam si qu'un di ki nga xam nekk mu Ousmane song exactement élage du côté de la régie euh,